voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bien sûr, avec votre grande chroniqueuse, borom matricule 221 Kharitou Et dalati ak es ci chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr, la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, vous pouvez vous abonner. En même temps, vous activer la cloche pour ne pas rater nos vidéos qui suivent. Vous jouez à 1xbet, n'oubliez surtout pas d'utiliser mes codes promo Kenza 221 ou le Kenza sur Melbet KZ de 221 et sur Sunubet Kenza 221. Alors sama gars yi tey nag pour une réaction concernant la toute dernière vidéo de Zo l'a intitulée Targaryen. Et comme d'habitude nous allons réactionner ensemble expliquer détailler analyser Après, à la fin de la vidéo vous pouvez ngeen donner un seen xalaat ci commentaire yi yéen avis day compter bu baax a pour moi. donc c'est maintenant ayca ñu cette année Game bi. boy maa YouTube pour dégluwaatoon sa projet bi mais non seulement gisuma projet mais am na ay vidéo aussi yu tëb nu fa demee noonu. alors mi fa comme ni ma leen ko waxee la vidéo a pour titre Targaryen. sound bi ego trip la mais am na clash am na ay name dropping am na ay technique am na ay référence y tout et lool yëpp dinañ ko identifier ci biir réaction bi. mais mën naa ne sound bi li mu gën ëmb mooy sa démission ci label bi mu nekkoon son problème ak Pipoza fi nga xamante ne ni tamit foofu la visé pour bëgg faa yegg ci biir game bi mais tamit dafa àndaaleek benn surprise muy lan Zokil la dafa rejoindre MZ Fiction bu BMJ loolu yëpp dinañ ci ñëw ayca ñu dugg ci biir sound bi. yow du raam. màgg doxee ñaari tànk ku yàgg si lëndëm doo ko jëndeeg leeraayu jant génne rab bi seen dëgg tur la war nañ ma sant dem la bomm ndax for naa ci nopp BMJ ne kàddu bala ay alors gars yi fii dañu am thèse ak antithèse ci lëndëm ak leer ñu am une technique de dégradation parce que dafa jógee ci point A wàcc sur les points suivants comme juddu màgg raam dox ak ñaari tànk bien sûr boo juddoo da ngay commencer màgg au fur et à mesure ngay màgg di raam dem ba ak sa ñaari tànk étape par étape la et quand il dit que il veut juste nous faire savoir que mon qui niveau international bien sûr et quand il dit ndax BMJ ne dafa def référence ci BMJ en prenant exemple sur un de ses sons où il disait cadre bal si je me trompe pas c'est le son intitulé mais qui veut juste nous faire savoir que cadre rek bien sûr mais par contre moom il préfère loog bombe d'ailleurs bombe moo gën a danger avec une bombe on peut tuer plusieurs personnes moom sax déjà sound bi yépp ay bombe la ci wax on continue you shoot he shoot we shoot xol bu jeex a tax nga génne sam clip bi youtube Tout le monde ngi là, sa bos doxul moo tax ngay sii suuf comme la mi ñu vigi doo leen jëm kaw moo tax di ngeen yàgg sii alors fii dañu am une technique d'allitération en s ci shoot shoot shoot six ak sii allitération technique la boo à maintenir ni day permettre rappeur bi mën a gaaw ci kaw bi mais fi dañuy am clash envers le gérant de son ex label parce que Zo Killineen dafa jéeg saari gis ñu tëbal produit yom yépp il connaît pas les raisons lenn lu ko mën jappé bien sûr muy xol bu jeex et pourquoi xol bu jeex parce que mom turam mu ngi partout gaay ñu ngi koy waxtané et que prouvé nañ talent bi nekk ci mom contrairement ak ki nga xamante ne ni moo borom label bi raison pour laquelle mu siisu teubal produit yom yépp et quand il dit comme Lamine Vigie di ngeen yag fété ci souf dafa def référence ci Vigie en prenant exemple ci la façon dont il parle ñun ñëpp xam nañ ni que Vigie buy wax du ubbi gémmi gi hmm, il parle doucement nank lay waxee donc dafa jël exemple ci loolu ñu dem. takk diis bi toujours taat ngeen di déggee bu dégg wax ci homie juutul perche par force yaa gën a sib ni booy bi tiitul kàddu bala tax grand yi dañ ma dégg rek tiitul. fii aussi dañu am une technique d'allitération en T ci takk takk tiit ak tiitul comme ni ma leen ko waxee allitération technique la boo xam ne day permettre rappeur bi mën a gaaw ci kaw bit bi. et quand il dit Zizou dafa des références à Zidane en prenant exemple du numéro 10 pour en nous faisant savoir que c'est le numéro 10 de game bi Nous avons en même temps jeu de mots ci Tat ak Djout, parce que Tat la ñuy juutoo nag yéen ma mais fii qui le veut juste nous faire savoir que dara du ko teree pes ci biir et que Demna na bu rabee sax gars ils vont dire damn ki nan la def tellement que lu a une technique de métaphore ay on continue naa ne même buñ ma tegoon seen télé kër benn kii nga daw seek booy dañ teel a peur daw nga ba xoox mënoo ma jot ko doomu xooqatal ñun temps bi la ñuy bàyyi la foofu ngay wokk heure man ak booy alors gars fii dañu am punchline ci le mot commandé parce que daf ñu jox un double entendement commandé comme ngay commandé nit dara mais comme commande télé télé ak kër ñoo koy accompagner pour ngeen comprendre punchline bi ñu am champ amul lenn loo xamante dañ ko koy proposé moom mooy xool lu ko neex mu def ko et quand il dit ñun temps bi la ñuy rawanteel bàyyi leen foofu ngeen wokku heure dañuy am punchline ci le mot heure parce que daf ñu jox un double entendement heure comme une heure mais heure comme heure bi nekk ci yaram wokku ak temps ñoo koy accompagner pour ngeen comprendre punchline bi ay ca sama gars yi ñu dem m tegoo leen ma sama place yàlla ma tax leeral hip hop bi looloo tax fit bi du maas filoo ni maa leen gën a ñàng caractère buntu laa ngay parentère alors fii dañu am une technique d'allitération en R ci caractère ramasse parentère loolu yépp une technique d'allitération en R la ñuy am foofu mais fii <laughs> non mais Zoki la du nit quoi sama gars yi fii Zoki juste nous faire savoir que moom il est très différent des autres manam dañu am une technique de comparaison ci mom ak raison pour laquelle mu ne man ak gaay du game genre niveau yi bokul en fait déjà nous buntu la alors que les autres ay parentère lañ ñu am un champ lexical ci courant parce qu'il a bien mentionné courant fil masse tal, ak et quand il dit courant dañu am punchline ci le mot courant parce que daf ñu jox un double entendement courant comme au courant de quelque chose mais courant comme électricité waaye sama gaay fi la question est ban rappeur lañu ramasse mu japp ni ko dañ ko duggal jeel à clavier bayna bàyyi naa mu wax len mako ci commentaire yi ñu dem. kondo guddi jot nga ne ngay karaté wàcc booy bi dalaat jël mbaaji fanan fee zo ki le fu album bi tollu entre parenthèses. fi dañu am punchline ci le mot karaté parce que daf ñuy jox un double entendement. karaté comme nit kuy kar nit ku la kar mais karaté comme karatéka taekwondo mo koy accompagner pour ngeen comprendre punchline bi. mais su waxee li ñàkkul ni am na ku mu amaloon bif après kooku doon ko jéem a kar est-ce que du piposa xaw ma <laughs> damay laajte yéen dama gën a xam donc ñàkkul ni loolu xëy na am na et quand il dit Zo Kilo fu sa album bi toll entre parenthèses fii mu ngi xamal ni que gars yi ñu ngi koy laaj projet bi fan la toll mais actuellement mu ngi ci nekk di job espérons que dinañu ko jox dans sous peu de temps let's ñu dem. tuddee sa bopp sa bopp ndax yaa ngi ndellu si rajo yëpp mosul ma dàq bi ndax sëy alors gars yi fii dañuy am référence ak name dropping ci Tupac Tupac da un Ndélo. mais fi le monde est dañ ciy am punchline parce que dafa ñuy un double entendement Ndélo comme une coiffure mais Ndélo comme une kuy de di fen en même temps il faut utiliser une benn technique d'écriture bu ñu wax laali tot parce qu'il pouvait bien dire yaa ngi wër ci radio yi di fen mais il a bien dit yaa ngi wër ci radio yi di rek juste pour coder le mot fen motax mu indi Ndélo. mais par contre gars fi ku dugg na dañuy am clash envers ki nga xam modi piposa c'est piposa qui l'a traité de naboudage on sait bien que Pipoza moo signé woon fi nga xamante ni moo music mais fii Zo qui le veut juste nous faire savoir que Pipoza dafa quitté fi nga xam ne moo di différent music moo waral mu wax toute façon rumeur bobu depuis loolu maa koy gis muy circuler ci internet bi que Kidi di Pipoza dafa quitter fi nga xamante ni different music et automatiquement j'ai pensé ça adresse à Pipoza parce que mok Pipoza clash bu metti jotoon na dox seen diggante en plus Zo qui le mu ngi xamal ni que carrément que c'est pas parce que dañ ko dak label bi mu nekkoon muy W Studio c'est juste que dafa quitter rejoindre fi nga xamante ne ni modi di MZ Fiction bu BMJ du on a une confirmation ay ci sama gaay ñu dem ngay rab pour quelques vues rabbe soppeeku marché ku nekk sa marchandise De l'en créer ay collab te ngeen a nekk nit ñu jibi bi dañoo télé yek succès ku ne di ñoo di riche alors fii dañuy am une technique d'assonance c'est une technique qui consiste à répéter une voyelle sur chaque mot mais fii la mu ngi xamal ni carrément comme da fay rap pour am xaalis par contre ñeneen ñi dañu rap pour quelques vidéos, on a une technique de comparaison mu def référence ci ben tiktoker qui a l'habitude de dire nek len ay nit je sais même plus son nom Shakim Xawma Hakim en plus Zokila nous fait savoir qu'il est temps ñu def ay collaboration entre rappeurs mayante khalis weccoo public c'est mieux que d'être là de clashante ak di dag santé ça mène à rien du tout amul ben sens en fait ñu dem. xëy am bësu taat ku ne di ñoo di tàkk diw booy bu ndaw la mais ñëpp may xoolee bàyyi rab ndax su ma bàyyee rab sa bàyyi may woon ma dellu sil alors fi dañu am une technique d'allitération en W ci liw diw ndiw ak ndaw donc loolu moo waral ñu am une technique d'allitération en W mais fii Zo Killer veut juste nous faire savoir que moom booy bu ndaw la ci game bi d'accord mais rappeur bu mag la ba dem na tey bu bàyyi woon rap ku ñu jàppee bàyyi ci game bi da koy woo ne ko dellu sil tellement que dafa mën rap et que warul di tardé wala muy raat ci biir game bi en fait ñu dem. waane trop attanoo sama rythme nga bëggoon ma imposé rare mais daf ma yokk job bari ay fo le bel tegal le contrat yu di mujjé fenn la fañ sax day tek business mu dox fi ba tey mu ngi wax ak le gérant de son ex label en nous faisant savoir que gagne bi entenu rythme raison pour laquelle mu ko doon proposé Aska Mourad ci bir game bi ñun ñëpp xam nañ ni ko Zokila dafa am présence bu mag ci bir game bi Zokila mu ngi ci session studio yi mu ngi ci featuring yi mu ngi ci freestyle yi dafa am présence bu mag ci biir game bi présence boobu nag la gaañ bi attanu raison pour laquelle mu ko doon proposé ask mu raar alors que moom Zo Kilo du ko nangu et quand il dit lafañ sax day teg business mu dox dañu am punchline ci le mot dox parce que daf ñu jox un double entendement dox comme business buy dox mais dox comme lafañ buy dox lafañ ak business yëpp mën nañ accompagner même mooy pour ngeen mën a comprendre punchline bi ay ca ñu dem support foog képp ku leen support musuma taal mais ñi tàkk dinaa leen fay ni club kaani wisi seen taati ba kenn toog xel bi la ñuy dawal dawal cëri ba xëy gaare trop clash na képp kuy rappeur ak képp ku leen di support à bon entendeur Saleng ñu amaale en même temps jeu de mots ci taal ak fay ñu dem neelu flop respect day réciproque man awma temps toog lijjantiwuma seen xottu trône xaar sama waxtu jot ma won la bandi woo ndax li ngay ñodd boobu ba léegi def naa ko à l'époque

donc sama gars yi lii nag moo nekkoon la sound Targaryen de Zo Kid la c' est un sound que j'ai beaucoup apprécié un sound que j'ai beaucoup kiffé comme ni ma leen ko waxee am na clash am na ego trip y' a des références des name dropping y' a beaucoup de techniques yoo xamante ne ni jot naa ko identifier pour que vous puissiez comprendre man nag li ma gën a neex ci sound bi mooy remix la. remix sound BMJ intitulé Kenny West moom la jël et gis naa ni que maitriser na ko trop trop trop sax indi ci lyrics yu tàng jër. Témoins qui l'a comme d'habitude il ne cesse de nous surprendre lépp lu mu de faire carré et que gars yu bari dañuy apprécier donc waxee les seen xalaat ci commentaire noo leen gisee le sound la vidéo noo leen gissé technique yi nga xamante ni indi na ci biir sound bi ak tamit clash bi nga xamante ni clash na ko Pipoza ak ci label bu mu nekkoon muy W Studio à vos claviers bàyyi mu c'était votre grande chroniqueuse borom matricule 221 xaritu ñëpp what's up à la prochaine sama gars gros bisous